ndeysaan mystique mystique mystique mystique fii nga ngi noonu lay lay lay la si ta ngi noonu mbokk yi mbokk internet yi si ngi noonu l'arrivée de Siteu cey takkindaa bee ngi noonu bi cey borom dëkk bi borom dëkk ñibbisi na cey borom dëkk ñibbisi na cey borom dëkk ñibbisi na laa ilaaha illallaah cey Siteu borom dëkk baa ngi noonu borom dëkk bi sel tey sutta borom dëkk bi kese sutta ngi noonu tey loolu tey yal min tey yal men tey fi dëgg dafa am lona ci caméra yi de waaw mais du wax ci caméra bi ah. wax ci caméra bi du wax ci caméra bi ah waxul tey loolu doy na wax cooy Siteu ngi noonu ñibbisi Yelmin bi ñibbisi na bi ñibbisi na laa ilaaha illallaah Tarkindaa bi ñibbisi na mbokk yi mbokk bi ñibbisi na wop wop wop wop bi ñibbisi na de laa ilaaha illallaah loolu dana cey takki daal lañ koy defar borom dëkk bi moo yegsi nga ne yalmin bi yalmin bi moo ñëw borom dëkk bi borom dëkk bi noonu mbokk yi l'adversaire de Modou cey la waa lay bëre waa yàlla lay bëre de laa ilaaha illallaah eh, aba cey ñibbi si na de Siteu dugg na si dëkk bi wop wop wop wop wop wop Siteu Siteu ñibbisi de Siteu ñibbisi na combat baa ngi ay Siteu ay Siteu ay Siteu Lamine Sène ay Siteu combat baa ngi noonu de Darkinda yaa ngi nii jël si ba fi nga xam ne mooy arène nationale wop wop wop wop wop wop ay Siteu eh li maa ngi mus a gis li maa ngi doog a gis. Siteu Seul li maa ngi doog a gis li maa ngi doog a gis. maa ngi aéroport porté am nañ gan nii lan la nii la mu nii la mu nii la mu aéroport am nañ gan nii la mu woo oh, jëy Siteu ngi noonu waaw waaw jëy Siteu ngi noonu laa ilaaha illallaah li doon wax de seet tan tan tan tan tan tan علي سما عطبا فوم فين لا اله الا الله جاي سته جاي تاكين دابي جاي تاكين دابي جاي تاكين دابي جيلي جاي تاكين دابي لا تهاو لا تهاو لا تهاو لا تهاو لا تهاو لا تهاو لا تهاو لا تهاو لا تهاو su ma ñibbisee gaa yi xam ne ne ñibbisi na waaye xoolal taxaw ne di xaar xoolal ba boo ba taxaw yem yole laa ilaha illallah wiyaay wooy wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop cay sita cay sita cay sita cay sita lii doon na war ça c'est incroyable lii doon na war Ça, c'est jamais vu. Eh. Eh. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est ça Ça, c'est incroyable. C'est ça Ça, je jamais vu. lii lu gaaw la jóge aéroport ñibbisi mu mel ni tey Siteu moo mën moo bu doole laay laay la laa tey Siteu du jamais vu wop wop wop jàmm ko ñëpp génn nañ waaw ñëpp génn nañ lii lu garaaw la lii lu extraordinaire la cey Siteu cey Siteu dëmm yaa ngi noonu nuuxóor yaa ngi nii nekk kamba nit yaa ngi nii laa ilaaha illallah kenn du Siteu kenn du yalmin bi li yéeme la lii doy na waar ma ne li yéeme la lii doy na nga gisee noonu mbokk